naa leen suñuy wax ñu naan ñu ngi nuyu cheikh mouhamadou shafia ak cheikh mouhamadul mahdi mooy magam cheikh mouhamadul mahdi mooy magam bu fekkee tartib ngeen bëgg cheikh mouhamadul mahdi mooy magam soo ci bàyyee ko cheikh mouhamadul qourachi moo ci tege cheikh mouhamad shafia ñëw cheikh mouhamadul abdul malik ñoom ñëpp ñuy suñuy doomi bàyyi ñun ñuy seen doomi bàyyi tax ñu ngi leen di nuyu ci bis bu tedd bii di jaarale ci ñoom nuyoo di nuyu seen doom Cheikh Mouhamadul Muntasir mu gën a siiw ci xamaada ñun ñoo koy tudd ca Qahira bàyyam tuddee ko Mouhamadul Muntasir تفاؤلا به كي يكون في المستقبل منتصرا أو, منت أو منصورا maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu ay doomi baayam yi toog fii yépp ci jataay bi fekkee la si ko bis bii tey di bisi Cheikh Mouhamadul Mamoun ridwanullahi alayhi dafa am ku wax ci jataay bi léegi léegi ida zukira mamuunu zukira maahul majdu taa saxa alkaram al imaanu al islaamu zukira maahul xubbu wal mahabbatu fillah yooyu yëpp soo tuddee Mouhamadul Mansour da nga ko tudd mu doon nit koo xam ne li arab yi léebu ñu ne say saydi fii jaw fil mu doon nit koo xam ne jikko yim fekkoon baayam di ko def yépp baayam jëlee ko ci baayam mawlaana cheikh alxaaj abdullahi ñes alkabir ridwanullahi alayhi cheikh ibrahim ñes nit ku bëggoon cosaan la nit ku fonkoon asaala la ndax daf daan wax ne kullu ma nahnu fiihi fa xasanatun min xasanaati walidina doomam ju mag ju góor atam bi muy dem màkka daf ne ko soo demee ba ca amaakin yi nga xam ne yàlla wax nañ ne siiw na ne barab bi nangu ñaan la na nga fa ñaanal sa maam na fa ñaanal sa yaay na fa ñaanal sa mbokki jullit yépp mu ne ko man xawma sama maam yow laa xam bàyyi oowaat ko ne ko sa maam jooju ma lay wax kullu ma nahnu fiihi fa xasanatun min xasanaat lépp loo gis ci ñun mu yéem la ci jikko yu rafet rek wenn yiw ci yiwam yi la kon cheikh Mamoun jamonoonteeg cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu jàngal xuraan fii ci Medina ak ca Mauritanie ca Tumbuyaali ca Rabbaani tare alquran ñëw fii jàngal quran fii jàng xam-xam fii ci Baye ak suñu sëriñ Baye Ahmadou Thiam Guinée radiallahu anhu Baye yóbbu leen Égypte ñu jàngi mu doon nit ku baax koo xam ne dëgg yàlla doon doom joo xam ne ku am doom ju mel noonu it da nga dollee sant yàlla te ñaanal ko ndax doom ju bëggoon baayam la waaw xanaa politiciens yi ñëw. la jël direct xam nga léeg-léeg nga gis ku bëgg sa baay. ba pare em ci waaye léeg nga gis ku si bëgg sa baay itam nawloo ko waaye léeg nga gis ku bëgg sa baay ba gëm ko nawloo ko teg ci baay ju mel ni Cheikh Ibrahima Niass nag lenn rek booy jëriñ ci moom dang ko bëgg da nga ko gëm waaye da nga ko nawloo teg ci nawloo nag jubluma ci baat bi li ko lu bari ci olof yi teg diw maag moom a bokk sant rek wala ñoo bokk juddu loolu du nawle nawle mooy jikko yu rafet yi nga xam ne fekk nga ci moom mu amee ko melokaane yu koy yi nga xam ne mi ngi ci moom nga nawloo jikko yooyu nawloo melokaan yooyu ba jéem a mel ni moom wala boo ko mënta mel itam nga topp ci gannaawam ndax bàyyi sax danay wax ne bi mu ñaanee xéewal daf ne yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy nawloo xéewal yi leen yàlla jax ndax daf ne if qalla kuf un naami nawloo xéewali yàlla yi ñi ko def ñu tuuti moo tax mu ñaan ne yàlla yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy nawloo xéewali yàlla yi bisa ngi nag ñuy fàttaliku waa ju baax ku baaxoon ci ay bokkam ku baaxoon ci réewam ku baaxoon ci dëkkam ku bëggoon sëriñam ku bëggoon taalibe yi sëriñam ku bëggoon ay doomi ku bëggoon ay doomi bay taxam mbooleem lu bokkoon ci maam alxaaji Abdoulaye Niass sëriñ Mamoun fonkoon na la bëggoon na la bu la gisee dafay jàpp ne gis naa lu bokk ci maam alxaaji Abdoulaye Niass sokkee dafay ñaan yàlla sax daf naa la ñaanal ma yàlla rexla bii Abdoul Baqi doon nekk li léegi ca Maghrib man fekkee naa ko suma Cheikh Seydi Arabi Niass fekkee na ko Mansour mii la ñu Serigne Mamoun booleetoon ñu ànd ak moom muy suñu gawam ñu ànd ak Alxaaji Omar radiallahu anhu dem Maghrib atam fa lañu ooree ba koor gi waaj jeex ñu soog a ñibbisi maa ngi nuyu ba tey ci passage maa ngi nuyu Seydi Arabi Niass moom itam xam naa ko muy mbokk ci Serigne Mansour ah sëriñ Mamoun doon xaritam doon waxat ndooram di ko dimbale ci yu bari mbokk ku am mu baax da koy dimbale ci lum nekk yonent bi ne ne unsur axaaka zaliman aw mazluman xaw nga zaliman nuñ koy dimbalee mu ne da ngay ci loxoom doomu aadama yëpp amul ci kenn ci ñun koo xam ne maasum nga anil xata wala bis dina la ñëwal boo xam ne soo moytuut ak aadamitu dana feeñ ci yow waaye bu la yàlla mayee mbokk bu baax wala xarit bu baax bu nekk ci sa pegg te bëgg la di muxlis dana la teg loxo ne la muñal ndax li la dal nii daana dal ay nit ci bis yu mel nii waaye soo ko muñee yàlla dina la ci bindal yool te da nga ci tabaxee loo xam ne moo gën mabbu ko tey Seydi Arab bi moom kenn la woon ci ñooñu Cheikh Mouhamadul Mamoun maa ngi nuyu ba tey suñ goro bu baax Cheikh siir sàll mi nga xam ne mi ngi denc suñ doom na Zeynabu jógee Fuuta Fuuta sori na lool ba ñëw fii ci jotaay bii ngir fekkee si Sëriñ Mamoun jar na ko waaye wax dëgg yàlla jaral na ko ko moom moo tax maa ngi koy nuyu moom itam maa ngi koy ziyaara wax na ñebbis bis bii dañ cee bëgg a rendre hommage Anzur masmuelan ci luga arab bi raddul jamil wala fàttaliku mooy fàttaliku daal xam nga man euh, dama ragal fi mu ne ñu dem a dem a dem a dem ba tubaab yi nii ñu ñu ilifee ci jëmm ñu ilifee ñu ko ci làkk ñuy làkk seen làkk yi ci barab yu ñu am barab bu sell bu mel nii ñu toog fi rek di làkk tubaab loolu baaxut luga faransiya warta nekk suñ puukaree war nañoo puukaree woon leneen lu loolu waaye daal ñu ngi fàttaliku ci suñu bis bii di delloo njukkal suñuy mbokk yoo xam ne yàlla moom na leen ci at mii ñu doon ay tànneef ci dëkk bi ak ci pays bi ak ci taalibe bàyyi fu ñu mën a nekk ci pays ci àddina ki ci njëkk ci ñooñu mooy Sayida Fatimatu Zahra Sayida Fatimatu Zahra doon taawu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mu doon doom ju baax doom ju yiwee taalibe bàyyi bu dëggu nga xam ne ak taalibeem amutoon sax làqal damay fàttaliku benn bis keroog bi bàyyi amee dugalee Jibril Samb ci néegam rahmatullahi alayhi Fatimatu Zahra mi ñu romb ci gannaaw tàkkusaan di dugg néeg bàyyi boobu ay xale lañ daanaka dooguñ ay mag nii ñu topp ci koom mu ñëw nuyoo bàyyi na ko Zahra lan la mu ne ko damaa ñëw ndokkeel si la xamoon naa ne yaay doona yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma déggee ne am nga bëkk néeg bu tudd Jibril mën ne naa ñëw ndokkeel si la yëf yi gën naa dëggu ci man leer bàyyi jóg toog jël ngay naa li teg ci ñaari penkam yu tedd yi radiyallahu anhu ne ko ne ko alhamdulillahi rabbil alamina waaw dal sant yàlla moom ci loolu Sayda Fatimatu Zahra moomu yaay la woon ci pays bi jigéen ñi ci pays bi yépp mbaa ñi aju ci pays bi mbaa ñi bëgg aju sax ci pays bi xam nañ ne Fatimatu Zahra mi roy teef la war nañ koo roy ci suufeel gi mu suufeeloon boppam war nañ koo roy ci taalibe gi mu doonoon taalibe taalibe tool bàyyi daf daan jot fii ci daggaal yi Sayda Fatimatu Zahra Sayda Aliyu mooy magi taalibe yi mooy oote aynalu ci jumaa ji ne tool bàyyi suba la waaye bu ne tool bàyyi suba la doo ko fekk mukk bu yorooree mu toog néegam ne man doomi bàyyi laa dafay bokk ci ñu enu beñuwaar yóbbu ndox ak ñi enu lekk di yóbbu daggaal yi di loolu ñun ñu ngi koy fàttaliku ñun ay xale lañ moo tax kooku suñ koy fàttaliku fii war nañ koo fàttaliku bu baax a baax ndaxtalee jikko yu baax yi nga xam ne tàmbali naa sànku ñu tudd ñu baax ñi nga xam ne seeni jikko dafay béel ba yàlla pénc ak jaamam yi ndax nit ñi bëgg a dabaatal dabaatal kon yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ngi fàttaliku ba tey suñu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane yi radiallahu anhu moom mi nga xam ne ñoom ñëpp ci pays bii bokk na ñun ñëpp maase ci ne borom kersa la woon bëggutoon kenn mere ko nit ku baax la woon mutawaadi la woon saxi la woon ku ku ku tabe la woon kërim la woon ku tedd la woon ku bëggoon ay mbokkam yëpp ku bëggoon taalibe bàyyi daaw tànqam lu dara lu ñu ko yëgal ci taalibe bàyyi rek mu jóg ku bëggoon alxuraan la soo gisaan kuy mottali alxuraan ci saalam ba lu nekk dana ko def ci ay teraanga ngir teralee ko alxuraan soo ko waxee mu ne la bàyyee bëggoon alxuraan te moo ñaan yàlla yàlla defal ko karaam ak alxuraan ba ñaan googu nangu kon képp ku mu fekk ci ñun ñi ngay dund su fekkee yaay mag ci pays bii rek buñ taree alxuraan ci sa pegg war ngaa def ay war ngaa def ay teraanga kook moom itam jar naa fàttaliku ñu ngi koy fàttaliku moo doon ambassadeur ca Nigeria kuutalam Baye yàgg na koo yónni Nigeria maa ngi taxaw ci benn leetar boo xam ne bàyyi ko bind waa Nigeria di leen wax na leen maa ngi leen di yónnee sama falzatu kabit sama dagit wu res alif alim la aarif la yi la wari la li muy dox na ci taxaw dimbale ko ci mu àgg képp ku ànd koo dimbale rek mën nga dimbale ku ma dimbalee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga dimbale ak ci Tijaan yi te ñooñu ku leen dimbale rek xam nga ne yàlla nga dimbale kon kooku moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di fàttali ñàkk nañu leen waaye ñoom ñoo dem ci yaram waaye seeni jikkoo ngi fi jikko yi du fi jóg moo tax ñu bëgg di leen fàttaliku ngir nit ñi jumu ci jikkoo yu rafet yooyu nga xam ne ñooñu noonu lañ meloon ba tey ñi ngi fàttaliku suñ beneen mbokk muy Cheikha Mariam sayida al fadila sayida mariam eh, bàyyi yebal ko mu demoon ndakaaru nekk ci néegi sëy baax jubal ko rek doy na dëgg yàlla nekk ci néegi sëy jubal ko mu aw yoon rek doy na ndam waaye nekk ci néegi sëy samp daara ci peggam nit ñu bari foog ne li xew ci jamono ji ngay def dangay ut loo xam ne da tabax loo xam ne biir beeg biti bi duwuñ benn ba am na sax koo xam ne kilifa gu mag gu jigéen gu nekkoon ci nguur gi atam mos naa wax ci moom ay wax ne maa ngi suma mbokk fii ci Malick si mu ne woo yaay daara la amee di indi ay xale yoo xam ne ñi ngi dëkk ci dëkkandoor yi Afrique yi suñ dëkkandoor yi ci biir Afrique dajale leen fa te daanaka defeewu ko dara lu ngir am dara Cheikh jàmbaar la woon sakantuma nga nekk ci dëgg na teg ci mu fexe ba gis Abdou Diouf ca booba temps booba gis Abdou Diouf yombut waaye am ñu ko ci dimbale ba mu gis ko mu ne ko ndaw si moo wax te sa jëw sa jëw din la nekk ci sa roon di liggéey yow ci sa bopp boo ko dàqul sax yow réew mi dinañ nga dàq gëñ naa ci yàlla ne aw ma benn ngànnaay bu dul alquran waaye daara jama amee danaa leen dajale ñoom ñëpp bis bu set ñu jàng alquran ngir yàlla toroxal ko ci sasoo yi mu ma sosol taxawut fa sax wax dëgg yàlla kooku moom itam wax dëgg yàlla jar naa fàttali ut na kër ci digg ndakaaru mën koo def lu nekk mu def ko daara wax dëgg yàlla doomi njàngam alquran mu bees mii ngeen gis léegi ci ndakaaru te ñëpp di ko tiitaroo daanaka moo ko tàmbali ci alquran te fii ba jumoo ci école bii nga xam ne école yi Maam Alaaji Abdoulaye la bàyyi yàgg na koo wax ab abnaa ixwati wa ahlal madrasa mintil madarisi aruni qabasa yaa ayyuhal banaatu zaaximna ila naylil ula amma bi ab abdaanin fala bàyyi nag on na doom yu jigéen yi ak taalibe yu jigéen yi ne tiitar bi bu mu àgg mukk ci ingénieur yu cher ak dégg nga ak cheveux yu cher ak def boppi neen góor góorlu ci jéem a rëj rëjloo ci maanaa yi ngir kowe waaye yaram lii la fala amma bi abdaanin fala xaw ma dañoo faalewut wax jeem ñu ci bëri dañoo jàngut arab waaye bàyyi moom itti bu rëj rëjloo ci yaram wax dafa waxoon ne la démb rek dafa am benn waaye bu ma téléphoné ci Amérique di ma laaj ñaari laaj ci bàyyi mu ne bàyyi damaa dégg waxi bàyyi joo xam ne dégguma ko wax dëgg yàlla mu ne wama ma wama azintu li nisa fi lxalwa saata zawrihinna waqtal jalwa waxtu waa bàyyi wax jooju lu ci jublu ma ne ko bàyyi dafa bëgg a wax taalibeem yépp ne leen digalu kenn ci yéen muy wéet ak jigéen jum joteetu dara ci néeg buntu tëju su suñ jamono ji climatiseur tàkk teg ca te duut sa jabar duwut sa maxaram seytaane mooy seen ñetteel moo tax bàyyi moom def déclaration ci boppam ne maa azintu li nisa fil xalwa saata zawrihinna waqtal jalwa moom jigéen ñi digg ba cëg lañ ko daan ziyaare te ay bunt yëpp ay ubbeeku sarale mu ne ma ridaatu fil kibar ma wax ko ko moom itam ne ko bàyyi def ci amoon ndigal du ne na ku jóg am ndigal ci loolu ne na moom am na ci ndigal lu bàyyeekoo ci yonentu yàlla muhammad bàyyi nag su ne am na yonent ndigal lu bàyyi ko ci yonentu yàlla muhammad kum neex nga weddi ko de waaye bu ko waxee dëgg la moom ndax cër bi mu am ci yonentu yàlla muhammad xaw ma ndax keneen dana ko amam déet waaye man xam naa ne am na cër ci yonentu yàlla muhammad ku bëgg nit ba bu buñ la foto woon photo ko bu cliché bi bu photo bi cliché boobu bu buñ ko sottee benn carte bu carte bi génnee jenn jëmm la ñuy gis loolu ñu ko ñemee wax bariwuñ xaw ma ñu ko ñemee oote de bëri na ñoom déet waaye ko ñemee wax de ñu Cheikh Mariam ñu jàll ci suñ beneen mbokk boo xam ne suñ doomi bàyyi la moom itam muy Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Serigne Mbaye Niass muy doom ci doomi Baye Mbaye di doom ñaareelu doomam bu góor Baye sampoon ko ci kër ma jëmel jox ko daara ja jox ko daara ja jox ko géew ba ne ko del jàngale del jiite del gàmmu gàmmu gi ngeen gis ci kër ma jibel bàyyee jóge Kaolack gii dem ba kër ma jibel mu gàmmuwaat fa sab fa gàmmu foo gis lu baax ci fii rekk rek Cheikh Ibrahima Niass demal na boppam ba àgg fa samp ko fa te war nañoo rus nag ñun bant bu bàyyi sampoon ñu bàyyi ko mu gooy njëmbatal bàyyi kenn waru koo bàyyi fu ko nit fekk ci ñun war nga caa suuxat dara ndax bu jëmbatee du dee moom soo ko bañee roos itam nit dana keneen da ku bokk toog yow daal dina fekk suuxat ko te bu boobaa yow la waroon mbaa bokk nga ci ñim waroon Cheikh Ibrahim moomu moo doon boroom daara ja moom itam génn na àddina def na lu nekk ci kër ma jëmee oote na fa lu nekk digal ne taalibe yi fekkeel ne taalibe yi lu nekk jubbanti na leen ci kem kattanam wax dëgg yàlla bu ziyaara jotaan fii ñëpp danañ koy dégg mu wax ci tuur taalibe yi ni nga xamee ne bàyyam daan na ko def suñ beneen mbokk mu cheikh Mouhamadul Mokhtar cheikh Ibrahim Niass ñu siiwee ko ci Mokhtar Mokhtar moom itam di doomi bàyyi yàlla moom ko ci at mi xam nga yii yëpp nag ñuy tudd tudduñ ko sax ngir di leen defali bis ñun di tab jiit bis yooyu déedéet dañ koy tudd ngir dal nañu te bam ñu dalee alhamdulillah yàlla defal nañu ñu ronu ñu nekk ci ron sëriñ boo xam ne lu musiba màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg moom Baye daan na wax daan na dellu ci boromam gërëm sant yàlla ci ay xéewalam dégg sant ko itam ci yi nga xam ne safaani xéewal la ndax daan na wax ne lii ay mexan la fi tayyiha minax lii ay nattu la yoo xam ne ci biir natt yooyu yàlla ci dexañ ay xéewal Cheikh Muxtaar moom itam doon nit ku baax di mbokk mu baax doon doon wéttalu Cheikh Mahamadul Mahi yi waxtu wu nekk ngoon bu jotaan boo ñëwee fekk ko moom moom ñooy toog di waxtaan moom itam mu génn àddina moom itam ñu ngi koy delloo njukkal di ko ñaanal yàlla ñu jeexalee ci déedéet jeexalaguñ ba tey suñ beneen jigéen ca Mauritania ñu di ko wax Sayida Baraka Umu Ayman Baraka muy doom ci suñu yaay Fatimbu ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhuma moom itam yàlla bàyyi yóbboon ko Mauritanie muy liggéey bu rëy boo xam ne bàyyi daf ko santoon ñëpp bàyyi fu mu mës a ebal nit rek liggéey la fa ebalee fexeel ba booy jigéen na jigéen ñi jumo ci yow jikko yu rafet nangoo topp yàlla baax di jokk ak bokk di éyonal nit ñi nga xam ne seen diggante dafay ñagas ku la laaj fekk nga am nga jox ko moom itam ci loolu la nekkoon nekk ci loxo ron muqaddam bu rëy di Cheikh Haadi wax dëgg yàlla nekk ci ronam ba kooku génn àddina mu toog ca dëkk booba uudu ko ci njaboot gi uuf njaboot gi ba yàlla moom ko ren moom itam rahmatullahi alayha yu jeexalee ba tey ci taalibe baay bu baax taalibe baay yëpp sax baax nañ waaye wax dëgg yàlla dañuy olofay waxee noonu rek mooy tilmidi wulu abdullah tirmidi wullu abdullah nit ñëpp nit ñëpp xam nañu sax tudd tirmidi waaye dafa bëggoon bàyyi ba nga xam ne buy waxtaan ak yow ci bàyyi daanaka dafay lox boo ko nuy jiyaan këram da dem sax ba ba wootu ci sa bopp yow moytu nga ooteel sa bopp loo duwut teraanga ju nekk dana ko uddi taaj ko sa kanam ndax daf lay xool di xool ne yow mii laal nga ci bàyyi lépp lu laal ci bàyyi rek Tirmidi fonk na la Cheikh Ahmad Tidiane demee Mauritanie ridwanullahi alayhi bernde bi mu ko defal ci bernde yi gën a rëy ci bernde yi ko defal ca la bokk te dafa jaay sax pàkk boo xam ne moo ko moomoon ngir teral ko teral ko woon ngir bëgg fax-faxa waaye ko doon teral rek ngir ne kii doom bi bàyyi la di suñ doom bi sëriñ jógee Sénégal ba ñëw egsi àndu teg dara lu dul indil ñu ay yiw ak barke ak naataange ak yokkute ak beesal suñu bëggeel ci suñu sëriñ looloo ko tax ñëw waaye du poñet ci àddina moo tax mu defal ko teraanga bu rëy boobu moom itam mu génn àddina yàlla fay na ko nag wax dëgg yàlla ndax moom mooy aw walu Mauritanie yi boo xam ne te magul ci taalibe bàyyi Mauritanie yi waaye moo ci njëkk koo xam ne ñu ngi ko denc ci barab bi nga xam ne fi la Cheikh Ibrahim nekk ñii lañ waxoon ne bëgg nañ leen delloo njukkal ci bisu tey bii ci bisu ah ah ñii lañu waxoon ne bëggoon nañu leen delloo njukkal ci bisu sëriñ Mamoun Niass ñu jeexale ko nag ci doomam Mouhamadul Mansour Mouhamadul Mansour doom la ci sëriñ Mamoun borom bëggeel gu koowee boobu ñu doon tudd borom jikko yu rafet yooyu dégg nga xam nga yonent bi ne ne al muslimu ilfun ma'luf jullit dafay miin dañ koy miin dégg waxtu wu la nit ñi gisee dañuy dañ lay miin doomi baayam yëpp dañ koo miinoon sëriñ Mamoun doomi bàyyam yëpp a ko miinoon rawatina classe ak Cheikh Mahdi gii dégg nga di sax bu tasaare nag moom daf koy wax ne ko maay sa sëriñ wax na ko ca Dakar benn bis mu fekkee mu ne ko nangul naa la ko ndax xam gi xam ne doomi bàyyi la ndax bu la sa doomi sëriñ ne la sa sëriñ laa nangul ko ko loolu dégg mën naa am sa sëriñ mooy wax ci làmmiñam Cheikh Mansour di sëriñ Mamoun doy na ko rek li nga xam ne Abdullahi wax na ko ci moom Cheikh Abdullahi Mouhamadul Muntaqa wax na ko ci moom ci ay ngëneel ak ci kàndoo guñ àndoo ak bokk guñ bokkoon ak bëgg bëggoon bëggoon ñu bokk ak ron gu guñ yaroo ñoom ñaar wax dëgg yàlla benn bàyyee leen yar ndax Cheikh Muntaqa mi ko jur Cheikh Cheikh Mouhamadul Mamoun moo doon kilifaam génn àddina bàyyee Cheikh Mamoun njaboot gi Abdoulaye mii naka jekk koo xam ñu bari sax ñi ko ràññew dañoo foog ne Abdoulaye Abdoulaye Mamoun la tuddoon waaye benn la ba tey ñaari turéef utee rek waaye jenn jëmm la mu yar ko jox ko jikkoom jox ko ay meloom wan ko ay bëgg-bëggam tarbiyee leen ñoom ñëpp ne leen nañ ànd ak yar ak teggiin ci pays bii Mansour moomu wax dëgg yàlla eh, nit ku baax la woon amoon na ay tatorlowaat yu bari ci biti bëggoon na lu bari ci pays bii man daan na waxtaan ak man léeg-léeg su ma gisaan daf naa ma papa foraat nga doom ma ne ko foraat naa doom bu ko defee mu toog buy ci oto sax dina mën a duggal ñu dugg ci kanam ñoom ñaar dégg nga ba chauffeur am wàcc ñu waxtaan dégg nga mu wax ma li mu bëgg ci pays bi ak ci fi mu ko bëggee ak ni mu bëgg ñu doxalee ko wax la yàlla moom itam mu génn àddina eh, gudd fan nag ak gàtt fan nit ñaa ngi koy compter ci ay waaye du loolu yonent bi ñaata at la judd 63 ans la yonent juddu la dund te lii nga gis ci àddina nit santa sant ba àddina tukki nit du fas jotaay lu da nga ko fas ci moom da nga ko fecc ci moom dégg nga Cheikh a Niass mi ñi gën ja 75 ans la dund am na ci sënam yi sax ñu passé loolu fi mu nekk waaye nit du fas jotaay fecc ko ci àddina bi yëpp fi mu ne te tuddoo Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu loolu mooy gudd fan gudd fan ak yàgg ci àddina du benn nit ñi dañuy wax ñàgg ci àddina waaye gudd fan mooy ku fi nekk def jikko yoo xam ne dootu génn àddina mukk ba yàlla penc ak jaamam yi Mansour moomu ci gawar googu la bokkoon ci yoon woowu la awoon di ci topp ay baayam baayam topp ci baayam baayam topp ci baayam wax dëgg yàlla ñooñu ñoo doon ay royteefam muy roy ci ñoom bëgg a mel ni ñoom su ca àggut itam wax dëgg yàlla def na ci dara kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla ko yàlla uutu ci njabootam yàlla ko yàlla yërëm yàlla ñu yàlla defal liñ bëgg ñun ñëpp fi may tëjee nag mooy eh, maa ngi sant yàlla bu baax ci jataay bii dëgg yàlla jataay bi jataay bu yiw la jataay bu baax la man de naka jekk ma gëm ne ziyaara cheikh mouhamadul mamoun medina gii lañ ko war di def ziyaara yu bëri sax fii lañ ko war di def loolu man sama gëm-gëm la ànd ak nag man awma solo daanaa dégg suñ menn benn jataay benn benn toogandoor buy wax ne mag bu sebete mandu ganaar lu mu wax ñu ne ko da ngaa juum waaye fii nuxba bii teew tey nit ñu baax ñi nit ñu tedd ñi teew te duñu ànd ak benn coono fu ne ku génn rek ñibbi sa kër wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla jotaay fii kër gii nga xam ne mooy kër alxaaj Babou Diagne ñu ko Abdou Bakhi tuddee ko bàyyi tuddoon ko bariidul fayda faydu bi njëlbeenul fayda gi leetar bu bàyyi mës a bind alxaaj Babou Diagne mi ko yóbbu ci tànkam te daf daan dox bi muy dem Màkka dafa dox ñaar lañ xamoon fii ci Medina ñoo xam ne ku ci nekk ñoom bi ngay dem Màkka da nga dox muy alaaji Babou Diagne ak Babou Dagga kon kooku suñ koy defal xew nañ ko defal fii xew ay bokkam yépp mën a teew ay am bi jàmmam mën a teew ay xaritam mën mën a teew ay dëkkandooram mën a teew moo tax maa ngi gërëm inis kii xalaat bi indi ñu def ziyaare bi fii ci Medina maa ngi ñaan yàlla am na ziyaar yu bëri itam maa ngi ñaan yàlla yàlla ñu roy ci bii fii mooy masab bi fii mooy masab bi ma madinatu tabqa am ni wal huda fii moom képp ku am wax ju baax jooy wax wala jikko yu rafet yoo bëgg a wane Medina Baye mi ngi lay ubbil ñaari loxoom di la wax marha shabab bi nag maa ngi leen di yónni maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp teew ngeen jikko yu rafet yi ngeen dégg ñu li ci mag ñi maa ngi leen di ñaan yàlla ngeen ci jumu yàlla ngeen ci jumu ndax yéenay suñuy doom yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg raaya ji dana mujj ci seeni loxo bu ci mujjee fekk pareelu leen ko du baax jikkoo leen jikkooy pay bii am na ci ñu bari ci yéen nag soo moy tuut aw nañ yoonu sànku aw nañ yoonu sànku maa ngi leen di moytandikuloo àddina fi mu ne am na doole yu bari yoo xam ne ñu ngi xeex te lislaam la ñuy xeexat te lislaam bu wéer moom mi ngi fii ci kër Maam Alaaji Abdoulaye Niass yàlla musal nañu ba léegi ci njaayam dorog yàlla musal nañu ba léegi ci góor jigéen yàlla musal nañu ba léegi ci naan ak sàngara bu fés yàlla musal nañu ba lu bari ci ñaa ci faramason bi nga xam ne xew na ndax bëgg xaalis yàlla musal nañu bu baax ci làmmiñ ñu ñaaw yi nga xam ne xew na ci réew mi ñu di ko bocc di ko jëmee ci wàllu yu yàlla yàlla musal nañu ci waaye nañ leen gën a daw mag ñi dara indiwul leen woon fii gone yi nga xam ne nag démagogie daf leen a neex ak démagogie ya da ngay dégg ñu ne fii duwut place waaye fii bu fi Maam Alaaji ñëwutoon fii bu fi Cheikh a nga samp sancutoon tey kon ñu ñëpp la ñuy bu boobaa ñëpp ñu gën moo tax jikkoo leen jikkooy dëkk bii fu ngeen dem nañ leen xam ni ci ne mi dina bàyyi ngeen dëkk taalibe Cheikh Ibrahima Niass ngeen tiitër bu réy bi yëpp nag mooy do taalibe nañ do ay taalibe te na ngeen jàng teg ci nag kaala yi bëri nañ lool fi mu ne waaye gone yi na ngeen jàng jàng du wees nag na jàng pays bii ku fi bëgg a doog kilifa wala nga yaakaar ne da nga fi doog dara ëllëg da jàng ndax nit ñi kenn mënu leen a nax bàyyi mii dafa newoon ci dëgg lépp lu mu mos di wax dégg naa tey Mouhamed Lamine bi tey mu ne bàyyi lépp lu mu mos taalif rek ci radd la moo tax muy taalif dañoo dañoo dañoo wax l'islam dara rek mu jóg di tontu kaashiful baas ci loolu la ko def subul euh, subul salaam fii ibqaa il maqaam ci loolu la ko def bayaan wa tabyin ci la ko def tanbihul azkiya ci la ko def te yooyu yëpp téere yëpp bàyyi taalif dañuy joxoñ l'islam rek mu jóg taalif téere xam nga nag ñi nga xam ne dañuy jokk ci moom ci deret ku ci am maam joo xam ne waxtu joxoñee lislaam mu taalif te mu la joxee mbundi mu ñuul bu ci weñ dalee sax doo ko bind na ngeen moytandiku loolu na ngeen jàng na ngeen jàng wërsëg insha allahu taala ñi ñi ñu gën ñaan nañ wërsëg te wërsëg dana ñëw bàyyi mas na ñuy jàngal benn bis dañu xadis bii yonent ne lan tamuuta nafsun xatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab bakkan du dee lu dul li war a jot ci wërsëg dana ci jot na dina ci jot na ngeen ragal yàlla te rafetal utin yi mu ne suma bàyyi daf ci daan teg ne li nga njublan ba jot ci moo boo juboon jot ci waaye yàq nga sa der ba pare mu ne loolu ci maam Alaaji daan teg war nañoo ñëw leen fii jóge Égypte vacances yi ñëw yaramam naqari jàng siwuñ mu ne fa bàjjen Fatou Ibra Fatou Ibra ana yi lu tax jàng siwuñ tey mu ne ko xanaa ni sa yaram wi mel mu yónnee oolu ñu ñëw toog dars lu tax jàng siwu leen ñu ne ko sa yaram bi lañ gis mu naqari ñu ne nañu bàyyee ba suba mu ne jaan boof boomu lébu lañu la ñu bàyyi jox ko am na ci ñun sax ñu déggut lébu wuy mu ne jaan boof boomu jaan fi mu boof jaan ju mag fi mu boof mën na fee boomu maanaam li may feebar feebar mën naa leen a jox xam-xam ñu toog jàng Eh, koo xam ne nag dem nga ba sa yaram di naqari te nga ne naa joxe xam-xam kooku ku ne xam nga ne wa kenn warta askanu ci yow wala mu bokk ak yow wala mu dëkk ak yow dëkk sax dégg nga ñu di ko laaj mu naan xaaral ba ma dellu suma kër yal na ñu yàlla musal ci loolu yal na ñu yàlla dimbale yal na ñu yàlla wattu xale yi yal na yàlla yokk wërsëg yàlla joxe na wërsëg yéen ngay wërsëg yoo xam ne seen bàyyi amee wuñ ko woon seen bàyyi Medina gii mag ñi ci dugóo bi ku leen sullee woon léegi ñu ne fii du Medina parce que Dembo Njaay bi nga xamee ne lekk daf fee jafe woon tey gone yi ñu ci bëri suñ lekkee suñ naan garab ñi meew ñëw tëdd macha allah ndax lekk yu baax te bëri warwaay yu bëri na yére yi bëri na te bàyyi ne woon na suq lahumul ar yaamuruuna jaamiahum wallaha yaabuduuna aalimuhum yudarrisu aluluma fi kulli saatin yuri fuhuma walaabiduuna yalzamuuna dikra li juucihim rabbi yasuuqul mayra bàyyi ñaan na wërsëg nag dégg nga malikumu diyaara wal amwaala loolu lépp bàyyi ñaan na ko ñaan gémmiñ nag bàyyi googu du suñ gémmiñ ñi ñun du ñaan lu am na ndigal ci yàlla ne ko ñaanal te ñaan na ko te yàlla joxe na ko waaye nañ fexe doon nag nawle xeewal yooyu mooy nañ jàng xam ne ñuy toppee yàlla ak nu ñuy wéetale yàlla ak nu ñuy xormaalante ci suñu biir buñ ko defut dund bu perte la asalaamaaleykum wa rahmatullah waxoon yu mel nii miin nañ ko Euh, def na rendre hommage ci tànneef yi nga xam ne kii bi ñàkk na leen ren yi ñu bëree bëree bëri ñoom ñëpp di ay tànneef su mel ne attu ren